delluwaat suñu ay militants préparer leen waxtaan ak ñoom pour que ñu gën a daw ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg sëriñ bi ci biir Touba googu ba pare préparer wu bu bisu vote jotee fu bureau yi mën na nekk ñu góor góorgóorlu jël ay dispositions yu war a tax nit ñi dem voté ji pour que ñu bañ a euh, modifier structure vote bi en fonction li nga xam ne mooy bëgg-bëgg électeurs yi absolument et c'est important Fatou Abdou ñu jox la kàddu yi nga tàbbi ci waxtaan violence yi également euh, am violence ne fukki nit ak juróom benn ñàkk nañ seen bakkan euh, bëri na ci loo xam ne également dégâts yu ci am matériel euh, ndax yow euh, bett na la ak naka nga ko jàngatee. non bett ma mukk parce que réew mi depuis plusieurs années da ngay dof dof lu maa la gën a dof moom lañ ko téye. Mhm. ak par parloo boo àndeek man lu la neex wax lu la neex def boo ànduleeg man loo yëkkati musiba la doon ci yow et loolu tabaxul réew mi tey ji violence bi kenn mënu koo justifier c'est inacceptable pour réew mu mel na Sénégal e nga leen may ba mu profité aussi sax jaalewaat ñi nga xamee ni eh, seen ñàkk nañ ci seen bakkan jaale famille yi eh, mastawu ñi nga xame ni gaañu nañ ci ak surtout ñi nga xamee ni seen yoon nekku ci seen alal yàqu na ci te farewuñu gauche farewuñu droite boole ka activité économique bi nga xamee ne mooy dundal réew mi paralysé nañ ko pour ay moment et loolu moo tax sëriñ bu mag bi daan wax ni lu bon lu tuuti jar ta ñu nekk lu tax ndax dina jur lu bon lu dul jeex ba yowmal xiyaam ban réew lañu am ak lan la ñu bëggal Sénégalais yi defe naa ñooñ politique yi ñooy jóg nit seen itte mooy jàmmal Sénégalais yi wutal leen développement jamono yi nekk nag gumba war naa tal leneen lu dul tëbi teen mm-hmm. on a des millions de jeunes trois cent mille chaque année yu ñëw sur le marché de l'emploi pauvreté bu wér boo xamee ne dina ménage yu dul jeex ci réew mi boole ko ay jafe-jafe ci wàllu droit ci wàllu euh, liberté ci wàllu politique ci wàllu sañ-sañ yi nit ñi am parfois da ngay gis ay événements yoo xamee ni day jéggi dayoo ci li nga xamee ni euh, ñàkk respecter règle de droit yu ñu am ci ñaari côté yëpp nag parfois parce que excès bu amee ak jafe-jafe bu amee fu nekk ngay gis ay jafe-jafe fu nekk ngay gis ak excès et c'est la raison pour laquelle jamono ji ñu nekk nii ak li ñu dal ci université yi ak bërëbu yi xam nañu ne am nañu ay nawle ci àddina chaque moment bu ñu perte moment la boo xamee ne suñu ay nawle dañ ci profité pour rob dépasser ñu jëm sa kanam. ci ci loolu l' élément déclencheur c' est le procès Adji Sarr Ousmane Sonko euh, euh, fan ngay situer aujourd'hui responsabilité bi nga xam ne moo ñu indi ba ci situation bi tey. mooy li ñu nekk rek défiance défiance yi ñu am doole nekk ci bopp nguur gi. par rapport ak loi yu ñu jox suñu bopp nga xam ne nu la ci neex parfois la ñuy comporté manque de confiance boo xaman ne ñun acteur politiques yi am nañ ko jëm ci système bi jëm ci état bi jëm ci justice bi et la plupart du temps avec raison parce que am nañu histoire yoo xam ne dox na ci réew mi diggante une parlementaire u Khalifa Sall ak nañ ko foowee immunité parlementaire u Ousmane Sonko ak nañ ko foowee tey jii acteurs politiques yu dul jeex ñu ngi ci biir kaso bi et c'est des prise de position politique moo leen fa yóbbu boolekaak yenn déficit yi nga xam ne am nañ ko troisième mandat et cetera et cetera loolu lépp boo ko booleeg li ñuy dund ci biir réew mi je pense que ni lu ñu explosé loolu dafa yomb je pense que ni affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dafa bokk rek si la goutte ou les gouttes qui font déborder la pendant des années ñu ngi jël marmite bi di ko duy di ko duy di ko duy mu fees dell jël ko nag teg ci kaw safara ba jël marmite bi ak kubéer rek ci jël xeer bu dijj teg si nit ñi nekk ci biir boole ak tàngaay wi c'est tout à fait normal et moi ni ku ma liiroon nag ma waroon liire en 2017 di nga xamee ni cette situation était désespérément prévisible parce que am réew mënta nekk si bëggul yomb ores fan faral toñkat et cocktail boobu c'est trop explosif et tey jii nii ñun ñëpp dund nañ ko avec beaucoup de difficulté beaucoup dureté benn dialogue maanaam waxtaan boo xam ne da koo sekk ñu bëri ci askan wi ci pàcc bu nekk yow moom du ñàkk ne ci commission politique bi xam naa ne fa leen fa ngay war a mën a féete euh, bi ñu génnee terme de référence yi maanaam ponk yi ñu fa war a waxtaanee ndax jàpp nga ne boobu la dialogue dina mën a indi jàmm indi tekkaaral ci seen politique bi. yaakaar rek. tax dama jàpp ne amatuñu sax le choix parce que wolof nee na taal bu tawee tàkk côté bu nekk nga koy uppee xam nañu ni équation bi ñu am tey jii président de la république bi yàlla teg ci bopp réew mi def ci am rôle bu am solo bu mu war a jouer te loolu il faut que mu xam ko il faut que aussi ay partisans am xam ko acteur politiques yi tamit ki seeni i bëgg ak seeni position ñu am ci rôle bu ñuy jouer citoyens yi tamit am rôle bu ñuy joué mais gën di subir nag conséquence négatives yi nga xamee ni action yi ñuy def daf ko war a def tey jii dañoo soxla jàmm yaa Ndeye Fatou dañoo soxla nit ñi talaat seen bopp ndax tabaski bamal pendant des jour des mois tëj nañu nit ñi te xam nga li ëpp ci Sénégalais yi ci góorgóorlu la ñu téye seen kër su ñu téyee réew mi xar du am xaalis du am boole ak jafe yi ñu boole leen ak jafe-jafe yooyu ñu amoon ñàkk ak ndóol ak tolof tolof yi ñu nekk woon je pense que ni sénégalais yi acteurs politiques yi toju ñu réew mi toj bu war a tax nit ñi di dee ba pare ñu imposer ñu situation boobu alors expérience bi ñu am yàgg gi ñu yàgg ci politique dafa am lu mu war a jëriñ parce que nit bu fekkente ni ganaaru kenn nenu la foo dem yaa fa yóbbu sa bopp bu ñu wootee dialogue war nga fa mën a dem teew fa waxal Sénégal teewal fa Sénégal ñaar rek moo ci nekk ñu sampat sampaat jalago kupp kala naxee mbaay nga am fulla yi wax ni lii moom demul kër génn ci moom seet wecc wala boog ñu nekk ci dynamique xam ne réew mi mënuñoo bañ a waxtaan mënuñoo ñoo a jubóo ñu dem ci bu gaaw régler ko balaa ñuy dem ci élection présidentielle. waaw mais dialogue boobu est-ce que yéen ñi fa wuyu ji duñu leen latoo pour bu ëllëgee bu ñu fa jëlee yenn dogal yoo xam ne tënkoon nañ ko laataa ñuy ubbi waxtaan ñu ne yéen fekkee woon ngeen ko maanaam ngeen doon témoin yi d'abord dégg nañu ku jiite groupe parlementaire euh, libéro yi fa fële ca assemblée président Lamine Thiam ni gannaaw dialogue bi Karim Wade dina ñibbisi ci réew mi. président Macky Sall nee na après dialogue bi lay waxtaan ak askan wi ndax duñu acté la mu waxoon ca Korité maanaam daañu def amnistie ki nga xam ne moo di xalifa Sall wala Karim Wade ñu xoolaat nu ñuy fexe ba intégré waat ko ci jeu politique bi ndax ñaar ñooñu duñu duggaat ci jeu bi fekk yéenay nara a doon témoin yi koy valider. xam nga fii ñu toll ni tey jii acteur boo gis mu xëy di dem sa dialogue ba. am na bëgg-bëgg bu ko fa yóbbu ndax wolof nee na bu weñ deewee ci sow bëgg dee yóbbu ko sa bëgg sa sow maa tax ñoom ñépp ñi nga fi tudd am na galgal gu ñu leen galgal boo xamee ne bu wéyee du ñu teew ci élection yi Khalifa Sall décision de justice Karim Wade décision de justice Ousmane Sonko décision de justice alors lan mooy ndeyu ñaar yi jiitu ñu bëgg leen teg ci kaw taabal bi ñetteel bi ñu ne duñ ko wax man de jàpp naa ni loolu bokkul ci am xel bokkul ci fulla bokkul ci fayda bokkul ci yoon nest ba pare ay cheminement ci yoon ba pare bokkul ci li nga xamee ni mooy indi jàmm ci réew mi bu ñu defulee je pense que fi ñu toll nii léegi c'est tout à fait légitime que ñu mën a dem ca jaloo boobu déglu sax ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi ñu ne troisième mandat la ñu bëgg ñëw ku nekk wax li nga xam moo nekk ci yow ñun tamit ñu am fulla yi wax li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne bu amee jàmm dina dellu si si biir réew mi àllu ñaar rek moo ci am président de la république bi nga xamee ni ñoom ñoo yor majorité yor assemblée ñu mën a dem fekk nit ñi fi ñu leen di xaare wax lu war a tax xel yépp dal ñu am jàmm wa ilaa ñu indi loo xamee ni dëppoowul ak li nit ñi di xaar te en ce moment là amuñu ci benn responsabilité parce que jéem tale gàcce dee sax on aura tout fait pour participer ci loo xamee ne dina saxal jàmm mm-hmm. mais résultat ba